diggante Russie ak Ukraine évidemment wax naa ko message yu Afrique bi yëpp muy message yu benn milliard ak genwal ci ay doomu adama moom nag wax nañu lépp li nga xamee ne moom moo andi conflit bi ak négociation yi nga xamee ne seq nañ ko diggante Russie ak Ukraine te sax am na ay proposition yoo xam ne formule nañ ko jébbal ko waa Ukraine di xaar nag ba léegi ñoom ñu tontu ngir ñu mun a avancer bu fekkee réponse yi euh, nekk na ay réponse yu baax rek yaakaar naa ne léegi jàmm dellu su diggante ñaari réew yi waaye nag li ñu mën a seetlu moom mooy te wax naa ko président président Poutine mooy Afrique bokk na ci gën a loru ci euh, xeex bi nga xamee ne jamono ji moo ngi am ndax wàllum céréales yi exportation yi dañ ko gàntal ci sanctions yi moo ko waral loolu nag daf ñuy laal bu baax a baax moo tax li ma sàkku ci moom mooy ñu fexe ba gën a yombal exportation blé bi nga xamee ne mu ngi jóge ci Russie waaye tamit ci Ukraine ngir mu mun a egsi ci Afrique ñu mun koo jëfandikoo ci wàllum engrais bi tamit sàkku nañ ci Russie mu mun koo exporter bu baax a baax ngir ñu mën a suqali suñu mbéy mi nangu ñu ñu ñu andil ñu blé bi may ko li ñu bëgg rek moom mooy ñu ubbi marché bi ñu mën a jël suñu koppar jënd comme ñëpp loolu la ñu wax waaye waxuñ ku ñu may waaye nag pour ñu jënd il faut ñu mën a ubbi marché bu baax a baax sanction yi ñu gàntal ko ñu bañ a laal en tout cas li nga xam ne mooy blé bi ak wàllum engrais bi ñu mën a ñëw ci marché bi ñun ñu mën cee jënd comme ni ko ñëpp di jëfandikoo loolu la ñu wax te wax naa ko président Poutine mu leer nañ. question des